gars yi ñëw jàpp kontaan naa ci yow. waa di bëgg nag sama waaw koñ bu baax. waaw di nuyu sama yaay naan koy wax Ibi Diop mu dem jëndali ma cere. wala cere bi jeex di gërëm. faali ah. faali cere bu may jaay cere. billaay xam nga rek dama ñëw fii ma ne ko tey moom mooy lool naa la benn egg egg <laughs> faali cere bu may may nag. waaw mooy loolu noonu di bëgg ñëpp waa grand bi yëpp. macha allah jaajëf kontaan nañ ci moom bu baax a baax dama ci profité ah parce que Grand Yoff Graaf benn dëkk la boo xamante ne nii mi ngi commencé bari ay écurie xale yi fay juge di ñëw ci làmb ñi ngi commencé bari te bokk na ci dëkk yi nga xamante ne bari li ni jàmbat ñu jàppale te loolu du yoon Grand Yoff ci biir Ndakaaru la nekk te xale yi fay génn di bëri si ay jàmbaar lañu ay jàmbaar dëgg ñooy takk foofu ngemb Zarko rek exemple la ci ak ñeneen ñi nga xamante ne ñi ngi ci ginnaawam kon yéen tamit yéen autorités yi nekk foofu jàppale leen xale Grand Yoff ci wàllu làmb am na beneen xale bu fa nekk boo xamante ne bu ngeen ko jàppalee mën ngeen am lu nekk papa baari baari maa ngi koy siyaare bu baax champion bi ak yeneen champion yi fa nekk yëpp maa leen di bëggee mbokk yi dañuy dem ci combat bi ci topp nag boobu caatu ndakaaru moo koy bare ak Pape Sagna ñu dem. sa maam daa tëx sa maam hmm. sa maam daa tëx de sa maam sa maam doon tapet de. est-ce que dafa tëx. waaye yow sa maam balaa dégg fukki bala ñaar ne tuy. man tëx na ak doole. guerrier la woon. sa maam sa yow sérieusement wër na yàlla kafo. taw feex eh, eh, eh, waale di waxaale sponsor yi ñuy jéem a xoolaale gars tamit pour ay 4XL yooyu. xotti blouson bi dafa ñaaw. dañ leen utal ay blouson yu jot. tamit sponsor yi ñu ngi parce que kii 4XL la da ngeen di sóoraale 4XL yi la leen def alors yow yaay kan. man la caatu Ndakaaru moo. caatu Ndakaaru kay. waaw man la ñaata combat nga bëre. deux combats deux waaw. baa mu teel la. ok ah. eh, yow la Pape Sagna. kii yow ñaata combat nga trois combats la trois victoires. waaw. Ah. acca jegante tuuti. ay <laughs> eh, taxawal nii rek nag waaye léegi affaire yi nga def kaay nii tuuti yow lan la ko Pape daa tiit li nga koy wone arrangé wu ko de. <laughs> Eh, Pape barki Serigne Touba dafa. Pape damaa dugg si mu gis ma jënd galaas def wax ak ñi ma àndal. bëgg bëre bañ bëre. <laughs> yaa naa la dóor biir jari bi laa ma coor. Mon <laughs> Mbaye maa ngi sant yàlla julli ci yonent bi di nuyu samay ñaari waajur di ñaanal sama papa fi tëdd. al na ko yàlla xaaree àjjal di ñaanal sama yaay ju. amiin gaal tuuti gaal tuuti waaw. di nuyu monsieur le maire Bara Gaye nuyu soxnaam si. Marème Kane Gueye mhm. di ñaanal yàlla mhm. di nuyu sama waa koñ di ñu ma àndal sama kot su baax mhm. kii li ma koy wax aw ma lu ma koy wax nee da ngaa dugg si jënd galaas soo aw lu ma koy wax xamal tax ma wax loolu <laughs> dafa am <laughs> ban maladie xamal tax xamal la ma tax ma présenté fi waaw dama doon ñibbi bu yàgg est-ce que comprend nga man dañ ma jox adversaire na ma caatu Medina nga ok envoyé may photo waaw ma préparé combat ñëw ba fii <laughs> mu ñëw présenté wu est-ce que comprendre te te du woon kii moo nekk ci du photom lañ moo jox. est-ce que ay wax lu leer léegi nag. waaw comme bëgguma yàqu plateau bi. waaw ak ñi fi nekk assistance bi fi nekk. waaw ma ne naa ñëw présenté wu. waaw wax leen ni looloo fi am. kon yow du kii nga signé loon contrat. non du mu laa signé contrat. <laughs> loolu nag lu leer. xam nga weer du du du sa der la. setal sa weer di tuuma. parce que yow nekkul yow nekkul lañ la wanoon yow. moom faalewu ma ko. ah fa ah ok. moom lijjantiwu ma ko. ah mais du moom lañu la wan. nga toll ni guy faalewu ma ko <laughs> est-ce que la est-ce dafa am ay réalité est-ce que la <laughs> wax ni diw ngay bëreel envoyé la ay photo nga ñëw wa làmb ji tey. xaar xaar xaar il faut dialogue am. xaar taxawal taxawal taxawal. doo dialogue day am. il faut dialogue am. taxawal eh, s'il vous vous plaît. Euh, euh, euh, Boubacar yow mi tëgg combat bi lan wax ci kii lii kii wax parce que kii nee na du kii lañ ko wanoon mi mu ñëwee ba fii lañ changé adversaire bi wan ko kii loo wax Boubacar ñu ngi lay déglu bàyyi bàyyi bàyyi mu ñëwee waaw ma xool photo yi la waaye acca ñëwal ñëwal mu gaaw ñëwal il faut leer il faut mu leer ko eh, eh, eh, c'est bon c'est bon. faalewuma la. boo bëggee dëgg-dëgg. non faalewuma la may déglu. yaa ngi fi nekk sànq ba léegi di wax di sonal nit ñi naan kii lañ ma yónnee kee lañ ma yónnee sa da nga may déglu xoolal ñii sa yoon neewul ci ñoom maa ngi yow. wax waxal fii yow waxal fi temps bi day dem de. waaw kon yow defal nànk yow da ngay bëree kii wala bëree ak kii bëriwuma ak moom. bëriwu ma ak moom du ma ak moom. waaw waaw leer na contrat ak moom taxawal caat. moo kii dafa tiit moo kii fi mu avant loolu sax maa ngi nuyu maa ngi nuyu waa Medina baax a baax maa ngi nuyu sama yaay bu baax baax di ko ñaanal jàmm tawféex di nuyu sama papa. di nuyu waa Fass Mbao yëpp. waaw yow eh, faale woo ko waa defal naa rek. man maa borom Mandela Mandela laa dëkk maa ngi nuyu cat ba cat maire yi paa yi moo maa leen di yóbbu stade ñooñu dañ maa bëgg man doomu Fass Mbao laa di nuyu. Medina baax baax di nuyu waa port di ñaanal sama grand Pape Ndoye ndam lu gaaw te sedd barke Serigne Touba grand bu baax la ci ñun dañuy teg ci yoon di ñu jàppale écrit ba ku mu gis ngay def lu noonu mu ne nii la du nii nii la eh, eh, kii ne bëriwul ak yow kii mënu waay kii dafa tiit lim fiy wax ay xolat kii lañ ma yónnee muus lañ ma yónnee jinax la lay bëreel buñ ma ne woon caatu Ndakaar lay bëreel ma assumé ko bu ma ñëwee du ma ci rëccu dara mais yow caatu kan lañ la wax. caatu Medina lañ ma wax. ok musuñu koo wax caatu Medina. caatu eh. Medina dimanche la bëre dafa amoon combat seetaan nga ko dimanche la bëre. Eh, mais caatu Medina dimanche la bëre yow. jeexal loolu bi wax mais naka lay bëree dimanche la bëre dañu ma ne carrément daa am combat la. ok léegi léegi léegi léegi léegi yow wo wooteel ñi lay jàppale ci moom moom nee na moom. waaw nee moom faale wu ma. waaw mais kon na taxaw ñu bëre. koo faalewul kay moom bul daw. yow léegi faale ko. moom déglu mu la lijjantiwu ma ko. waaw bëri leen lijjantiwu ma ko. dinaa ko rëkk dinaa la rëkk ba seen biir. waaw loolu après loolu après waa CNG dinañ ñëw. jox nañ la jox kàddu dinañ ñu ci ay leeral. léegi wool ñu lay jàppale sa combat. maa ngi woo Moussa le maire. di nga bëri de yaa ngi woote. <laughs> waaw bu ma dee xëy woote. mais combat bi du ma ko bëre parce que du ma moom. si ñëw ma moom. waaw kay maa ngi woo wuyu ma. maa ngi teel la man amoo ku may woo sax. ah no parce que bëriwu ma. da ngay bëre ak moom wooteel bëriwu ma ak moom. maa ngi woo ñi may jàppale yëpp maa ngi woo waa Port di woo waa Midna ñi may jàppale di leen wax ni seen doom laa nañ ko def comme niñ ko doon defee jàppale ma ma ñëw daan bërëb bi li may wax ni yëpp xoolal deuxième la. kii Mourou Mbaye damay jéggalu ñëpp man li may wax mooy damay jéggalu ñëpp di jéggalu population yëmbal samsam sam un deux trois comprends nga di jëng di jéggalu route de Boune Malika di jéggalu ñëpp. ñëpp comprends nga. jégal nañ la ma ko woon nii jégal nañ la jégal nañ la xam am diw ngay préparer nga préparer diw ñëw fii ñuy changer adversaire parce que yow kii. moo. yaa fi indi problème yëpp yow. moo. mbokk jaa jaajëfal nañ leen bu baax a baax léegi ñoom ñaar ñëpp ñu ngi leen di bàyyiwaat ñu dellu dem toog seen place.